téere hmm? taalaw ñëw leen ay ah, yéen ñi ne a am maarifatu billahi yéen ñi ne yéen a am maqaama yu kawe yi yéen ñi ne yéen a am daraja yu kawe ci yàlla kon ñëw leen ila kalimatin ci baat boo xamante ne sawaa'un baynana sawaa'un baynana wa baynakum daf ñuy yemale dafay niveler lépp maanaam ah, lu sa foor foor ci yàlla téere bi aaya bi loolu la wax de yéen ñi nga xamante ne yéen ay kitaabi hmm? yene ne yene kawe maqama yene am lu ne parce que ahlul kitaabi dañu wax ne qalat al yahud udayr ibn allah ibnullahi yahu yahudi dañu wax ne udayr ibn allah yi na wax ne masih ibn allah dalika qawluhum bi afwahihim ah lol la alquran wax dégg yudahiuna qawla alladhina kafaru min qablu qatalahum allahu anna yufakun loolu la yàlla wax maanaam ñoom am nañu ay c'est des prétentieux c'est des prétentieux ñii ñoom ñu ngi wax ne kii Uzayr mooy ibnullahi te Uzayr mooy kan Uzayr mooy ki nga xamante ne ci biir yahudi bañ demee ba xam-xam bi kenn ci ñoom amatu ko Uzayr mooy seul nit bi nga xamante ne jàng na seen téere yi mokkal ko xam ko ñu jël ko nag fonk ko sacraliser ko ba ne léegi moom mooy moom mooy doomu yàlla bi almasiixu lan la almasiixu dafa am destin bu extraordinaire mooy amul papa te mu ngi wax ci xam-xam lu yéme mu ngi dundal ku dé mu ngi ki mu ngi mu ngi def ay kéemtaan ñu xol xol qualificatif buñ ko mëna jox xamuñ ko ñu ne kon ki doomu yàlla la dégg nga te yàlla na ci alquran inna masala isa inda allahi kama masali adama halaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun الحق من min rabbika fala takun min almumtarin faman xaajaka fihi min badi ma jaaka min alilmi fa ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين لكن باي فاتر نيو آية جو خمانتين دا فاي أبليكيو تي غاي بريتانسي مو أهل الكتاب نيوم نيو نيو غن لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ميم الجنة سان نيو كودول يهود كودول نصران دو فدوغو دينغا دا نيم دروي اك ا بريتانسيون هيجيمونيك يي نيك تي فاي دو بي جامونو بي كنا كل حزب بما لديهم فرحون دنگ باينك فاتلي نيو آينا يا أهل الكتاب ين بروم تيري تعالوا نيو لين يونت لا يالا دي واخ نكو واخال غاي نلا نيو ما فا تروفي ان كونسنسوس تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم نيو لين تي بات بو خامتاني داف نيو دا فاي داف نيون نيب ني تولو مانام اون سيرش ان بوين دو بوين دانكراج نيول بولي طالب باي لي سان بوين دانكراج موي فايدو بي موي شيخ ابراهيم نيست mu ne ñëw leen yéen ñëpp ñu dem daje ji foofu boroom xam-xam yëpp bi ñuy tafsir aaya bi dañoo ne yàlla dafa dafa jàngal yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan la ko jàngal daf ko jàngal daf ko jàngal humilité te daf ko jàngal tamit euh, daf ko jàngal humilité te ko jàngal tamit mandute ci prétention wu am xam-xam maa ku am xam-xam di woo nit ñi ci xam-xam dafa war a ànd ak humilité te ba pare dafa war a ànd ak maandu ndax yonent sallallahu alayhi wasallam leen ne ne leen ne waxu leen ne ñëw leen ci li gën ci li ngeen nekk de déedéet dafa ne ñëw leen ci loo xamante ne buñ ci demee ñun ñëpp koy tolloo est-ce que dégg nga wax ji ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum loo xamante ne buñ ci ñëwee ñun ñëpp ciy tolloo mënoon na leen wax yàllaa ne wa man yabtaghi ghayra al islaami diinan falan yuqbala minhu mënoon na ko wax mënoon na ne yàllaa ne ku jàpp beneen diine bu dul diine l'islam baaxul kon ci ay caaxaan ngeen nekk ñëw leen ci ñun bu ngeen ñëwul ci ñun caaxaan ngeen nekk waaye waxewul noonu dafa ne ñëw leen ci loo xamante ne buñ ci àndee ñun ñëpp ciy tolloo maanaam duñ leen gën doo leen ñu gën lan la allaa naabuda illa allaha mooy bu ñu jaamu kenn ku dul yàlla dégg nga est-ce que wax ji maanaam bu ñu jaamu kenn ku dul yàlla dégg nga du ñu jël suñu muqaddam duñ jël suñ muqaddam def ko muy muy muy ki nga xamante ne moo mbëru ci kaw ñëpp maanaam nañ jël ñun ñëpp suñ muqaddam yi ñu teg leen ñu jëm ci loo xamante ne dafay fédérateur bàyyi bàyyi ni muy ni muy ni mu tànnee aaya yi moo garaaw maanaam nañ bàyyi ku nekk ci ñun kam jàpp ne moo gën na ko yemale ci këram rek parce que bàyyi bàyyi la li ma doon waxtaan ak ñoom seenu benn jour ma ne gars yi dañuy fàtte benn affaire mooy yow so nekkee xalé xam nga so nekkee xalé yow sa papa moy sa héros so nekkee xalé sa papa gëna a ñëpp sa papa mo mën li sa papa day naaw sa papa day dal fi sa papa day dal fële so démé ba mag sa vision bobu du changer de mais da ngay xam ñëpp am papa nga noppal ñu ci sa waxi papa ñeneen ñi noppal leen ci sa waxu papa comprendre nga dé ñu jëma xol nak fo xamni nyi. fa lañuy dajé ñun ñëpp hmm? ta'alu ila kalimatin sawain baynana wa baynakum ñu alquran leen moy lan la nabuda illa allah moy duñ jaamu leneen lu yàlla wala nushrika bihi shay'an ta yàlla duñ ko bokalek len yàlla rek ay yàlla leneen dur yàlla hmm wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah te kenn si ñun du jël manam ay lennat si ñun duñ jël seen lennat def ko yàlla ay alquran la maam yow bul jël bul jël sa muqaddam def na mooy le seigneur bul jël sa muqaddam def ko mooy le seigneur maam sa muqaddam moo fi gën muqaddamu keneen du dara bu dee loolu la dootuñ mën a ci mukk nekk benn te entreprise bi li tax lii yëpp am mooy pour ñu nekk benn ila kalimatin sawaa'in baynana wala yattaxida baaduna baadan arbaaban min dunillahi fa in tawallaw su gaay dëddoo nag ah faqulu ashhad bi anna muslimun ashhadu bi anna muslimun su gaa yi dëddoo ne ñoom loolu gënalu leen li leen gënal mooy da ngeen di ñëw nekk si luñ nekk si su ngeen nekkul si luñ nekk rek yéen nekkoo leen si dara bu boobaa nag yéen wax leen ne ñun de ñun kenn dañoo wommatu rek te yàlla yàlla rek lañ wommatul waaye yam sallallahu alayhi wasallam xam nga mooy ngeen ji mbindeef ndeysaan bi mu ja bi mu jaglee lee lettre euh, هيراكلي لان لاكو واخ من محمد رسول الله الى هيراكلي عظيم عظيم روم سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك برعايه الاسلام اسلم تسلم ني لاكو يونت واخ ها آه، موغي جوغي سي يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم واي كام واخ waxul rek buru room de mais ma manam seigneur room bi ki nga xamantene ku important c'est à dire nit ki ki important pour mom bàyyi ko mu important pour moom bàyyi ko mu important pour moom moo tax kenn amul droit di wax ci muqaddamu jàmm di wax mel ni muqaddam boobu sagaru kayit la déedéet fii muqaddam yépp am solo rawatina sa bàyyi waxoon nañu ne la siyama alxaasatu kun mutia muaziman li ahlihi jamian la siyama alxaasatu kun mutia yon sallallahu alayhi wasallam sallam ba mu ak hirakle noonu hirakle daf ko tontu manam yow da ngay wote rek ku wote nekul forcément dañ lay top de te ku la topul waro ko mere da ngay wote rek de ah nekul ne yow bo wote rek dañ lay top de Héracle dafa ne dafa tontu yont yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko السلام إنا نشهد أنك نبي ولكننا ولكننا لا نستطيع أن نترك الدين القيم الذي استفاه الله لعيسى عليه السلام محمد ñun de amuñ sikki sàkk ne yow yonent nga parce que dafa def enquête waa daf ko càmbar daf ko càmbar ba xam ne kii mooy xalifa yàlla bi xam na ne mooy xalifa yàlla bi comme man li may wax man su ma demoon bu wóor ne kii mooy xalifa yàlla bi man suma xalifa yàlla xam nañ kan la mooy ki ma tànn depuis bu ma ko tànnee ba léegi kooku suma xalifa yàlla waaye ñëpp ñuy wax ne xalifa yàlla lañ nangul naa leen parce que aw ma nattuwaay pour weddil leen ko hmm? waaye nag waaye nag buñ ñu buñ ñu buñ ñu buñ mettil mbir mi daal ku la nangulul ne yaay xalifa yàlla bu dee yaay xalifa yàlla bi loolu la ñàkk nangul du la teree nekk xalifa yàlla bi bu la ñëpp nanguloon ne yaay xalifa yàlla te doo xalifa yàlla tamit du la tax a nekk xalifa yàlla dégg nga te nit ñi mën laa nangul ne xalifa yàlla nga sax te duñ la topp boobaa da leen di ñaanal njub rek yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam Hiraqle mii daf ko wax ne ko maa ngi ne yow yonent yàlla nga nangul nana yow yonent yàlla yow nangul nana yow khalifa yàlla nga walakinna la nastatiu an natruka ad-din al-qayyim alladhi istafahu Allah li isa alayhi salam nangul nañ ne yow khalifa yàlla nga nangul nañ ne yow yonent nga waye nak ñun wax deug yàlla mënu ñoo baye diine ju baax du dëgër gi nga xamantene yàlla moñu ko tanal jaareel ko ci loxo Isa dégg nga de yonent sallallahu alayhi wasallam sallam dafa yemu ci tontu bobu ba pare da ko ci tegal ñaan laqad sabata mulkahum ila yawm alqiyamati abadan yow sa nguur dafay sax ba yawm alqiyamati abadan dégg nga de te te te waa ji nangulu ko wooteem bi waaye terewul yonent sallallahu alayhi wasallam ñaanal na ko yàlla dégg nga de waaye nag ba mu envoyé lettre Kisra Kisra daf ko tontu tontu yu méttee métti dégg nga de yonent sallallahu alayhi wasallam ne xarraqa allahu mulkahum yàlla na yàlla xalak seen nguur gi ci boobu lañ gëj amee ñoom nguur dégg nga de bàyyi indiwaat beneen aaya nañ ko fàttaliku wa ma kaana li basharin ma kaana li basharin an yuti an yutiyahu llahu alkitaba walxukma wannubuwata summa yaqulu linnaasi kunu ibadan li min duni illahi walakin kunu rabbaniyina kunu rabbaniyina bima kuntum taalamuuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuun ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون بايتانا بنن آية من وما كان ما كان لبشر آية الله يوحنا أمول بن نتي maanaam du ñu du yell ci doomu aadama yàlla jox ko kitaab wax ji wax ju ma neexal tamit yàlla jox ko kitaab jox ko xikma jox ko nubuwa maanaam bépp garaat bu nit mën a yegg rek yàlla jox na ko jàngoon nañ fii ne garaat yi lan la li gën a kawe qurbaaniyatu risaalatu ak nubuwatu mu ne ginnaaw bi la yàlla defee xutbu waaw bu la ginnaaw bi la yàlla defee xalifa yàlla ba pare du yell ci yow ngay wax nekk leen samay jaam walis yàlla maanaam bàyyi leen yàlla bu leen jaamoo yàlla ñëw leen jaamu ginnaaw bi la yàlla joxee nubuwa jox la jox la xikma jox la téere du yàlla ci yow nga ne nekk leen su may jaam bàyyi yàlla bu leen jaamooti yàlla jaamu leen dégg nga waaye mu ne luy yàlla ci yow walakin kunu rabbaaniyiina bima kuntum taalamuuna alkitaaba nekk leen bu tollook seen tarbiya ak seen xam yàlla comme li ngeen xam ci kitaab bi kitaab bu bima kuntum tadrusuuna ak la ngeen jàng dégg de wala yaamurukum te du leen digal moom tamit moom yàlla digalu leen an tattaxisul moom yonentu boobu kooku noonu nga xam ne moo toll ci maqaama boobu deefu ko digal mu jël malaayika yi wala mu jë mu ne leen jël leen yonent yi wala malaayika yi ngeen def leen ay yàlla du leen digal loolu ndax bu ko defoon yaamurukum ndax daf leen di digal moom bil kufri ci weddi yàlla baada is antum muslimuna gannaaw ba ngeen wommatoo ngir yàlla dégg aaya bi de ñu ne li aaya bi di firi mooy amul benn nit boo xamante ne ci nit yi la hmm? lu dul na rek buñ ko joxee am njub njub loolu daf koy servir mu ànd ak ña ko ña ko yàlla booleel ñu womatu ngir yàlla waaye du jël njub gi di ko di ko jëndee ak réer da wax ji de من وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه حكيم أليم علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور من وما كان لبشر بكنا تي أي يبايتان تي وارد من دويل أبن دافون أن يكلمه الله يا الله دي إلا وحيا لدل مجارة وخ غموي وخي أك مجارة كو تي في تمت سي تريز انتريسان خل parce que wax yu il faut ñu xam mooy lan wax yu il faut ñu xam mooy lan démb maa ngi am benn waxtaan bu intéressant ak ay mbokki taalibe bokk na ci waxtaan woowu noonu comme ñu man sama position yëpp laay assumé bokk na ci waxtaan woowu noonu mooy lan mooy uluhiyatu lan mooy uluhiyatu ak lan mooy rububiyatu maanaam lan mooy le statut seigneurial ak le statut divin le statut divin ak le statut seigneurial du benn am yalla yalla buy yàllawu ak rabbu buy mom du ben du ben ndax so comprendre lan moy différence entre le le statut divin ak le statut seigneurial di nga mën xam suñ né diw mooy xalifa yàlla ndax fay am complétude complétude wala pas am buñ né nit mooy xalifa yàlla ndax fay mat seuk wala hmm? ma ñu waxtaan nag waxtaan wu yaatu ñu waxtaan waxtaan wu mu ne ma ndax xut bu lépp lay xam ma ne ko waa xut bu lépp lay xam waaye waxuñu xut bu yëpp xut bu zamaan lañ wax ma ne ko ndax boroom xam-xam yi dañ lay wax ne yàlla kenn du ko xam yàlla mooy le plus grand inconnu ci lépp mooy yàlla ci rububiyatoom daal foofu yàlla kenn dugg fa kenn génn fa ba di ko mën a xam yàlla bi ñuy xam nag ma ne ko maarifatu billahi maarifatu billahi dafa am ñaari façon maarifa dafa am maarifatu boo xamante ne c'est une filiation naturelle boo xamante ne ñëpp xam nañ ko yàlla maarifa boo xamante ne maarifa bu naturelle la doomu aadama yëpp ils ont en eux cette filiation naturelle dégg nga loolu tax raabital aadama bint ismail doon wax yàlla ne ko uhibbuka xubbayni xubbalha wa xubban li annaka ahlun li zaaka dama la bëgg ñaari façon bëgg yàlla benn bëgg bi c'est bëgg bu naturel la parce que bëgg boobu ñun ñëpp ko mooñ ñëpp lañ mo moolaa mooñaale bëgg gog googu boobu la ñuy woowee almari almaarifatul maftur maftur alayhi ma'rifa bi nga xamantene ci suñ fitra la nekk fitratullahi allati fatara an annaasu alayha ak ma'rifatu bo xamantene taklifiya la ma'rifa bo xamantene ne c'est une quête benn quête la boy am ba ba jot mbir mi fa firru ila allah fa firru ila allah wa fi anfusikum afala tubsirun ma ne nag gis nga maarifatu billah buñ ko waxee waxuñu maarifatu yàlla ci rububiyatoom dañuy wax maarifatullahi ma ne ko te li gën a garaaw mooy yonent sallallahu alayhi wasallam mooy martaba ci uluhiyatu ma ne ko en réalité ñun sax su ñuy wax ne xam nañ yàlla limu may ni lu may assumer la parce que damaa jàpp ne bu dee xam-xam la rek nga xam ne mën nga ci amay delluwaay mën nga ko wax librement ma ne ko yonent sallallahu alayhi wasallam ndekete ñun moom mooy Euh, forme prototypale bi nga xamante ne ci moom la accéder ci connaissance yi bàyyi sax au contraire dafa ne dafa ne yonantu sallallahu alayhi wa sallam en fait ñun moom la ñuy xam duñ xam yàlla comprendre nga léegi yonantu sallallahu alayhi wa sallam donc moom mooy euh, li nga xamante ne bu yàlla bu fait defee zuhur bu feeñee lay feeñ bañ mën am lu ñu mën a xam ci yàlla ji loolu yonantu sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko kon yontu sallallahu alayhi wa sallam ci jamono dafay feeñee feeñuwaayu yàlla gu mat sëkk te képp koo xamante ne waaris muhammad yi la yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la doon day feeñee yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci léppam est-ce que comprendre ngeen li may wax maanaam yonentu sallallahu alayhi wa sallam buy feeñee yàlla dafay feeñee yàlla ci léppam par convention duñu wax ne yonentu mooy yàlla parce que suñ ko waxee rek édifice vicarial bi yëpp dafay yàqu parce que buñ né buñ buñ manam suñu ñëwé rek ñu né yàlla yonantu sallallahu alayhi wasallam moy yalla rek manam li taxone manam secret bi taxone yalla wacce doomu adama mom moy moom mooy moom amati sens comprendre nga comme li tax ñu génné aadama mënoon nañu ko baye mu nekk aljana continuer dañ ko génné aljana indi ko indi ko ci kaw suuf pour que se déroule une mission vicariale donc so défé raccourci bi né ñëw rek né yalla yonantu sallallahu alayhi wasallam moy yalla manam Euh, détruire nga édifice bi nga xamante ne mission vicariale bi ci la lépp tegu waaye soo waxee contraire bi tamit def nga musiba bu rëy rëy def nga musiba bu rëy rëy dama bëggul ñu déglu bu baax li may wax parce que lu ñu war a xam la lu ñu war a assumer la ndax pas-pasu tiijaan yi ci tawxiid dafay tourner entre ñaari ñaari ñaari extrême ñaari position yi ñoo am ci yàlla te position yi c'est même pas des positions soufianke mais position position philosophique la ci yàlla benn position bi mooy la transcendance divine maanaam Yalla, dafa kawe ba sooy xalaat yàlla mënuloo ko lier jamais ak mbindaafoon loolu transcendance divine la loolu ñan ñoo ko indi moo c'est un courant de pensée rationnel en islam boo moo ma maarifa ak tasawuf de mais ay philosophe avons développé idée que manam yalla jamais au plus grand jamais que waruñ ko aborder ci sens bo xamantene day junjune yalla war philosophie l'idée de transcendance divine d'accord moy laysa kam ñu ne laysa mislihi shay yalla dara melul ni que hmm? yalla dara melul ni philosophie wax dara melul ni yalla ci alquran à partir de aya bobu ñom ñu bâtir sen benn théorie tudé ko la transcendance divine transcendance divine bobu yóbbu leen bañ ci ñu né yalla xamul ramification yi ni manam les événements factuels ak accidentels yi di xew yalla xamuko intéressé wu ko li intéressé mom moy les principes yoy la xam lool mom moy transcendance divine benen bi mom moy tashbih moy yalla ak nit ñi ñoo nduro li ma lay wax ni du ay position de de de soufian ke bu tararari di wax de mais ay position la ci bir tawhid parce que yalla ne amna loxo ñu ne yalla ne amna loxo kon loxo loxo yàlla amna loxo amna kanam yàlla day deg yàlla day gis kon yàlla comme nit lol tashbih la legi nak waxon na len ne ci janiyatu dafa am ben principe bu muy deme moy principe du juste milieu gis nga diggante tashbih ak tanzih boobu noonu si la credo tijaan bi di prox ndollowu pour gis doomu aadama bi maanaam doomu aadama bi doo ko différencier de façon totale ak yàlla waaye doo ko nduróole de façon totale ak yàlla sans que l'un et l'autre soit faux sans que l'un et l'autre soit faux c'est-à-dire yàlla dafa wax xadis bu ñëpp xam lu mu wax dafa ne inna allaha yon sallallahu sallam moo ne inna allaha xalaqa aadama ala suratihi yàlla moo bind doomu aadama à son image yàlla moo bind doomu aadama à son image donc à partir de ce moment yàlla dafa bind doomu aadama à son image ñu ne non yàlla dafa bind doomu aadama à l'image de aadama bu boobaa wax ji dafay xaw a dafay xaw a compliqué parce que parce que l'idée de prototype bu fekkee ne moom moo établir ci xadis bi ni prototype bi normalement dafay précéder li ñëw nekk lu dérivé ci prototype bi mais suñ ne yàlla dafa bind aadama ci forme prototypale boo xamante ne aadama mooy le premier la la la le le premier le premier xamu nu ñu koy tuddee le premier élément de laboratoire bi nga xamante ne si lañ déparé day compliqué mais quoi qu'il en soit y a un hadis boo xamante ne amul benn werante ne ñu ngi wax ne inna allaha xalaqa aadama ala suratihi yàlla mu ngi dans une forme prototypale dans sa forme prototypale maanaam ni yàlla mel non la bindé adam d'accord donc dom adam bi il a une identité divine participative quoi qu'il en soit parce que cheikhu tijaani radiallahu anhu da fay wax lo xamanteni ni lu am am am solo la te wax nañ ko fi kérok cheikh da fa ne wujud bi ñaari wujud mo am da am lu ñuy woowee wujud bo xamantene ne wujudi la ak wujud bo xamantene ne dañuy wax ne jaizul wujudi la te ñaar yoy rek fi nek manam le principe premier bo demee ci bo delloo ci Mu'tazila li ñuy wax le principe premier bi nga xamantene ne lu nekkati rek ci ay ramification am la nek ko fofu motax affaire yeb ben la parce que faydu daf lay wax ne en fait faydu moy flux divin yi nga xamantene ño déparé ci principe premier bi ba fi dernier tëjël loloy faydu léegi nak ñu ne mu ngi déparé ci euh, parce que je n'ai aucune prétention mais dafa livre livre non, apocryphe la livre bi existé wul dañ koy Aristote wax livre bi mais livre existé c'est-à-dire que bañuy traduire les œuvres grecques en arabe ñi ko traduire c'était des chrétiens nestoriens chrétiens yoyu nonu am souci ou faire correspondre la philosophie grecque antique au credo islamique donc nous ñu dajale ci la philosophie néoplatonicienne nous nga dogme de l'unicité avons jël ko la euh, la théologie d'Aristote mais théologie d'Aristote livre les de Plotin parce que Plotin c'est un continuateur de la pensée néoplatonicienne mais en réalité nous mu'tazila yi loolu lañuy wax mooy yàlla dafa kawe kawaay boo xamante ne il est transcendant et xam nga le dieu de Platon est c'est un dieu inactif yàllooy Platon yàlla la gaa mais yàlla la boo xamante ne ba mu bindee la effacé wu ci mbindaafoon gi ok donc da ngay retrouver maanaam maanaam tey si doctrine soufi yi ñuy développé parfois da nga siy retrouver loo xamante ne ndekete du maanaam du suluk du tarbiya du darame reproduction ay idée philosophique la comprendre lolo looloo tax ñu am ay ñu am ñaari ñaari position yu catégorique té ñaari position yu en fait on aurait pu les faire se se rejoindre d'accord mo mooy né doomu adama ken mënu wax ne yalla la parce que buñ ko waxé manam li taxone ñu bind lu taxone doomu adama ñëw ci kaw suuf dotul amati sens mais so waxé né tamit doomu adama il n'a rien de divin c'est-à-dire que tu mais en mal son être spirituel te doomu aadama bi li xam ci moom yàlla mooy son être spirituel a li may wax wala dégg ah doomu tax muy hein, la ci li tax doomu c'est sa part de divinité participative c'est son identité divine participative qui fait que doomu Adam bi mën a seeyal ci biir yàlla ji su amul woon loolu du jamais jamais jamais jamais mës nga mën ngaa gis caoutchouc maanaam mës nga est-ce que mën nga gis caoutchouc mujjee nekk or est-ce que mën nga caoutchouc xam nga du mës a nekk or comprendre or tamit du mës a nekk caoutchouc li tax doomu aadama ji hein euh, tabi sabila man anaba ilayya toppal yoonu ki seey ci ñun li tax mu mën a seey ci moom c'est qu'il a une dimension en lui qui le fait participer à cette divinité mais divinité bu ñuy wax nag loolu la loolu la nit ñi dul comprendre cette divinité elle n'est pas seigneuriale elle est divine mais pas seigneuriale kon doomu aadama bi day nekk yàlla mais du nekk yàlla parce que li nekk yàlla ci moom du aadami yëtoom nekk yàlla ci moom du aadami yëtoom doomu aadama bi loolu boo demee ci kitaabul waaridaat kitaabul waaridaat dafa expliquer lu leer a leer dafa wax ne doomu aadama bi xam waxoon naa keroog xaqaayiq yi ma waxoon mais bu nee insaanul kabir dafa ne insaanul kabir doomu aadama soo ko jëlee dafa am une double dimension il a une dimension spirituelle et une dimension physique sa dimension physique tu sais c'est quoi c'est son être physique mooy bopp bi nopp bi nanga naam li ñuy wax ne jeex ci yàlla bi wax être boobu du jeex ci yàlla et les gens n'ont pas compris maanaam gis nga yow gis nga doomu aadama bi jëmm bi haykal bi mënul jeex ci yàlla bu demee ba taxaw ne maay yàlla sax da ngay gis ne ay nopp la am bakken la am bët la am te gis nga yooyu noonu maanaam yooyu noonu mu am noonu li nekk li nekk li humain ci moom li humain ci moom du topp luwaawu jeex est-ce que comprend ngeen li may expliqué ah li humain ci doomu aadama du topp luwaawu jeex bu bu waree bu waree bu waree bu waree nelaw ànd ak ne jeex na ci yàlla ji day nelaw su ko xet su su ko xet gu bon waree xeeñ ànd ak ne jeex na ci yàlla xet gu bon gi da koy xeeñ comprend ngeen bu baax su waree xiif ànd ak ne jeex na ci yàlla takk dafay xiif moo tax bàyyi di wax ne li gën a yéeme mooy nit ne la yegg na ci yàlla te ni mu toloon noonu la tol ba léegi cela veut dire que li en fait ce qu'on loolu yàgg naa ko wax mooy li théoriser spiritualité ça n'a rien à voir avec l'être physique c'est l'être spirituel donc dans aadama bi par force il a ce qu'on appelle le principe de transparence divine maanaam doomu aadama lay deug ci mom loolu lu divin la liy deug ci mom loolu lu divin la suko soufianke waxuma kenen de mais suko soufianke wédé rek amna lu bari lu muy màbb suko soufianke wédé rek su fekkee ne doomu aadama bi il y a quelque chose de divin en lui suko suko soufianke bi wédé rek dana weddi dana weddi ne sallallahu alayhi wasallam mu ngi dundou ba léegi parce que son être physique est parti son être physique est parti mais son essence spirituelle demeure parce que c'est une part de la c'est une part de la divinité. D'accord léegi part de divinité pour nga comprendre lan mooy part de divinité si noonu ci ki ñuy woowee xalifa yàlla dépasser le participatif. je te je donne la théorie générale de la xilaafa waxuma ku ko appliquer wala ku koy woote mais képp kuñ ne mooy xalifa yàlla xamal ne que sa sa son identité divine participative déplacé wu na nek lu quelque chose d'électif électif bo xamantene da koy permettre lepp lo xamantene mission de vicariat bi da ko laaj vicariat xam nga moy lan moy représentation té lolu yalla ko yalla ko théoriser la représentation de Dieu sur terre lolu yalla ko théoriser inni jaa'ilun fil ardi khalifa Yalla ko théoriser donc lepp lo xamantene mission de représentation bi daf koy laaj khalifa yalla bobu daf koy meun خليفة يا لبوب دفكو يمن قد أزدني بالعلم والتسريف إن قلت كن يكون بلا تسويف موم يالا موم ترلي موم ترلي جهما قم قم جهما تصرف سوما ني كن دفاي نيك اس كومبرون با لي اكسبليك لب لو يالا من خمال لي يونس الله عليه السلام بامي نيك محمد ابن عبد الله ام ميم تان محمد عبد الله منون نكو وارثم تميت mën na lépp lu yonent sallallahu alayhi wa sallam mënul kon lepp lu yalla mën mën nako li lii théorie générale tasawuf la que soit la personne qui prétend être avoir avoir eu accès à ce niveau là normalement war na mën am li ni yëpp motax tax suy exprimé wu ci xam-xam il s'exprime avec autorité du exprimé wu comme kuy personne lambda buy wax xoolal rek Baye bi ñuy wax ci affaire Baye fi maqam Ibrahim dafa ñew bind téere bu bind téere lan la wax sabilu salaami fi iftaa'il maqaami su dee bëgg ngeen jàmm bàyyi leen fi maqaama bi te pourtant da doon def fatwa rek mais lu tax mu mën a waxee noonu mooy jamono boobu muy wax loolu moom mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf te lu mu wax loolu la yàlla di def lii ku ko comprendre di tasawuf laay wax nag après si c'est un c'est un c'est un mec d'un autre courant on peut discuter de manière beaucoup plus élaborée tax mu nekk leneen lu dul moom mooy dafa war a dérouler benn mission vicariale su loolu jàllee rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mais danañ ci am beneen yoon waxtaan loolu kii la woon nii rek dégg nga de bàyyi ne bàyyi kii ne ki ne mu ne nag mu ne nag mu ne doomu aadama yàlla du wax ak moom lu dul da koy jaarale ci wax yi wala mu jaarale ko ci benn xijaab ginnaaw benn xijaab wala mu yónni benn yonent boo xamante ne daf koy ñëw inspiré ko dara te ci ndigalu yàlla la koy defee te yàlla nag mooy ki nga xamante ne moo kawe te moo xereñ mu ne naka noonu lañ wàcceewee ruux mu jóge ci suñu mbir yoon sallallahu alayhi yàlla wàccee ci moom ruux mu ne yow yonent bi nag maa kunta tadri mal kitaabu avant may wàccee ci yow ruux xamoon lan mooy téere walal imaanu te xamoon lan mooy gëm yàlla walakin jaalnaahu nuuran waaye def nañ ko muy leer goo xamante ne di dañ ci jubalee bihi ci moom man nashaa'u kum ñu neex من عبادنا سسني أي جام وإنك لتهدي innaka la ياي جبل إلى bi مستقيم تيون وجب siratin mustaqimin ci ك wu jub li cette double dimension de l'être humain elle est elle est elle est coranique parce que yàlla fii lan la wax yonent sallallahu alayhi wasallam innaka la tahdi ila siratin mustaqim yow yaay jubal yow yonent bi directement yaay jubal lolou la wax yonent bi fi c'est la double dimension que tu comprends pas Moi, liñ que l'homme a une certaine identité divine participative parfois qui devient élective et quand elle devient élective y a une délégation de pouvoir qui est totale c'est-à-dire qu'il intervient comme si c'était le divin qui intervenait mais c'est toujours le divin qui intervient parce que moom mooy joxe lool rek nga mëna wax yàlla moy joxe kon kim jox du yàlla waaye jox nako jox nako lépp de nga fi nee ko yow yaay jubal yow yonent bi yow yaay jubal ila siratin mustaqimin siraatillah yonaw yàlla wi hmm alladhi lahu ma fi samawati yàlla mom li nek ci asman wa ma fi l ardi ak li nekk ci suuf ala ila allahi tasiru l umur waaye wax dañ taxaw ci wax xam nga wax en réalité borom xam-xam yi firi wax yu dëgg-dëgg mooy mooy wax yu mooy message divin bi ngay jot xam nga lan lañ ko firee mooy QI bu super puissant pour am une capacité de compréhension qui défie les lois de de la nature c'est-à-dire ki nga xamante ne moom mooy euh, xam nga da yéen a ngi dégg li may wax wala déet mm-hmm. parce que waa ji bi ma nee xutbu ndax dina xam lépp loolu laa ko expliqué mu ne mais est-ce que xutbu mën na xam euh, est-ce que xutbu mën na xam électricité mën na xam nangam nangam nangam mu ne ko kaay ma wax la

comprendre mais bokk na ci particularité wu xel maanaam su focusé ci benn affaire du mën a focusaat ci leneen ma ne ko nag gis nga nag ki nga xamante ne mooy waaye mooy yoon nubuwa ki ci toll moom la ñu ci benn niveau boo xamante ne maa li nga doon def temps bu bëri pour comprendre ko moom il le comprend tout de suite yow da ngay jàng mathématique moom jàngul mathématique moom mi nga xamante ne mooy xalifa yàlla bi jàngul mathématique soo waxee deux fois rek mu comprendre maanaam soo waxee benn yoon mu xam ci ba xam ci loo ci xamul parce que yow xam-xam nga jàng mais moom compréhension bi lañ ko donc mo loolu mooy wane ne moom lépp lay xam lay xam ne est-ce que dina xam astrologie ah, bien sûr te bu koy xam jamono bu mu koy xam kenn du ko xam lim xam ci xam même ñi ko sax duñ ci xam dara exemple ma ne ko gars bi ñu ñëwee bàyyi ne bàyyi ne nañ ci ñu ñu ne dem na ci weer wi mais borom xam-xam mënul nek wax pas ne a ne dem leen ci fu neex waye do leen dul sama dem lañ comprendre gaay ñom dañuy wax yu vitesse de compréhension vitesse de compréhension bi ngay am lool mom moy wax yu nak ñu wax yu yonent am am mais dénomination bi moy changer li gars comprendre li ci li ma wax identité ñom dañuy foog ne bu identité bi ba bu tour bi changer rek contenu bi fay changer. la don uluhiyatu su ñëwee nekk nubuwatu maanaam c'est le nom qui change mais le contenu ne change pas xam nga nag ngi comprendre li may wala déet su ñëwee nek tamit c'est juste le nom qui change mais le contenu ne change pas buñ né ki buñ né ki dogal la am maanaam dogal la am ñu né ki tasarruf la am ñu né ki karama la am xamal ne li li def ben lay doon waaye nag ki nekk ci bopp bi kooku lañuy ñuy kooku jël mu am statut bi nga xamante ne keneen du ko am ne serait que en considérant le principe d'antériorité xam nga yéen comprendre li wala déet kon bu ne lii wax yu la yonent dafay am wax yu wali yàlla tamit dafay am wax yu mais kenn du ko tuddee wax yu lan lañ koy tuddee buñ ko tuddee ilham buñ ne tamit yonent dafay woote dafay def daawa ah wali yàlla dana woote waaye suy woote kenn du ko tuddee woote dañ koy tuddee فقد جاء نصر الله والفتح وانتهى دج الكفر والطغيان إذ جاء أحمد وأشرق نور العلم والرشد والتقى ألا تقنقوا دين الرسول فاسأدوا بيننا يونس صلى الله عليه وسلم نيونا دمبل نيونا فتح نيونا فتح نيونا هم بفر بيوتك يفر جيخنا أك بيوتك شاخانك فو با أحمد نيوين bu la neexee sax nga ne fatxu ak nasru ndimbal gi yonent moo ko andi ah leneen li Cheikh Tidiane ko andi wa ashraqa nuurul almi wa rushdi wa tuqa fala taniqu diina rasuli fas fa tashadu bàyyi nee na nu leer ak xam-xam tasaaroona fenk na maanaam bu fekkoon ne jant buy fenk la fenk na njub tamit tasaaroona ragal yàlla tasaaroona kon nag topp jàpp leen ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir ngeen texe dégg nga bàyyi nga wax ne huwa alhadiyu هدي المصطفى وسواه هوى ودلال لا تقضى لا لا لا تقد ببراه فوحي من الله الجليل جلاله على أكمل الرسل الأمين تلاه وبينه وبينه إسلام بين شريعة لذا الوحي غير المصطفى وهداه يحب قصيدة بجد لبونه فوف لبايدون وحسد دم بوحنا آه، لما لون وحسان خمونه آه، Eh, yonentu sallallahu alayhi wa eh, dafa taxaw fa qaama yazudul xayra xubban wa xiiratan ni ah xubban wa xiiratan di wax ne yaqulu fama xayriya yasummu sadaahu hmm? bàyyi nee na yonentu sallallahu alayhi wa sallam dafa taxaw ci buntu yàlla bi ngir rek mbëggeel ak fiiraange wa xayratan yaqulu fama xayriya yasummu sadaahu di wax ne man fii ma taxaw kenn du fi taxaw ne da ngay mos yàlla ah fiiraange ak maqaama dafay am fii ma taxaw kenn du fi taxaw ne da ngay mos ah bàyyi nee na wa inna nii la fi xiiratin mi ma yarumu muhammadan tey laa gën a fiir ci kuy wax ne dangaa bëgg yonent bi waaye ànd ak fiir gi xam naa ne fi ma yegg kan mënu faa yegg walakin na nii jallaytu qabla sibaqihim te lan laa am waqad niltu tabriz alquruni li ahmada dem na ba ci biir nag di wax na walim la wa idul abdi izu malikuhi fa taw u yamini lkawnu abdan musawadan dégg nga de dégg nga de bàyyi nag kon dama taxaw fii dégg nga fa man un atan bu la yonentu teree yàlla jox na la yàlla bu la nee doo am yàlla dégg nga li bàyyi dox bàyyi ne bu la yonentu teree yàlla jox na la hmm? bu'dun bu la sorilee yàlla moom yonentu bi qurbun jege na loo yàlla ndax jege nga ko moom bu'dun wa qurbun xijaabuhu kiiraay gim nekk moom yoon sallallahu alayhi wasallam maam kiiru gim kiiru moom zawaalu xijaabin mooy jeexal kiiraay dégg nga wax ji de festanir kon leer leer lul yéer ndul bisanaahu ci leer yonti yàlla Muhammad a alayhi wa boo bëggee gis pay yàlla bi utiliser leer ak yonti sallallahu alayhi wa sallam nga ko yàlla dégg nga de fa mahma yaqul moom bu taxawee naan la laa sabila li wasliman amul loo benn yoon boo mën a jaaree pour yegg tuxibu ci ki nga bëgg fakul laa araka siwaahu nekk gisuma la ngay keneen ku moom hmm? dégg nga bàyyi ne nag bàyyi ne nag fa anta muraadul kulli yow yonent yaay sàkkuteefu ñëpp waaye nag wal kullu waasilu ñëpp yegg nañ ci yow fa mahma daraaka al abdu bis bu la jaam xamee yow yonent bi naa la munaahu jot na càkkuteefam dégg nga wax ji de waaye lam commencé woon wax ji mooy nee na hadiyu gu njub gi njub ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la kene leneen lu dul njub ak yonent sallallahu wa sallam nee na réeraange la de hmm? réeraange la kon ba gis nga kon dama ne rek yonent dafay am dafay am daawa bu muy def te yonent dafay am waxyu wali yàlla dafay am dafay am ilham te dafay am rushdu waaye ñaar yi yëpp soo ko mënee dégg mooy fahmu mooy dégg bi ngay dégg parce que xam-xam fahmu la dégg nga xam-xam moo te boole te aay bi ñu waxoon sànq sax kitaab boobu sax gaa yi fahmu lañ ko firee woon dégg nga de wala qad ataynaaka sab'an min al masaani والقرآن العظيم لا تمدنك عيني عينيك إلا ما متعنا به أزواجا منهم يا لنا نيون صلى الله عليه وسلم جخنا سبع المساني والقرآن العظيم سبع المساني نيب نانا يون صلى الله عليه وسلم فيرينا كو نانا موم موي موم موي فاتحة جخنا لا فاتحة ak القرآن بول جيغي لنين دي دم سي لنين دنگا دي لغي نك باي نك بام جوري اي ييب يو wane ne prétention yeek Euh, woote lépp war nañ ko mën a harmoniser ba mu joxe en tout unifié ndax dara génnul yàlla ji dara duggul yàlla ji waaye tamit yàlla ji cafka la ak mos te ku nekk ni ngay ni ngay amee cafka ak ku nekk ni ngay mosee bañ ba Moussa dóoree yatam ci géej gi fukki sewnde ak ñaar tasaaroo na te ñam àndaloon ñëpp ku ci nekk xam ne ci ban sawnde la war a la war a naane hmm? bàyyi ne al muridu la yuridu almuridu la yuridu ki bëgg yàlla du bugg dara maanaam du bugg leneen lu dul yàlla muridu la yuridu ki bëgg yàlla du bugg leneen lu dul yàlla abu abbas at tijaani eh, xam lan laa doon wax ba wax ji génn ci daal mu ne ndaw lu jafe wax na dëgg wax na dëgg bëgg bëgg dem ba tollu sa mbir say mbir toll foo xamante ne yow dootoo bëggati dootoo yittewoo ci leneen lu dul yàlla lu jafe la yàlla ñu ko yàlla may waaw macha allah macha allah macha allah xam nga loolu xadis la boo xamante ne abu xamid al ghazali moo ko indi ci eh, kii ci ixyaa ulumuddin Mune dawud daawuda la ko yàlla wax la ko yàlla wax yu daawuda la ko yàlla wax yu sànq ne wax yu lan capacité de capacité de compréhension léegi yont yàlla daawud dafa ne yàllaa ko xamal ne ko yaa daawud yow daawud innaka wa uriidu yow da ngay bëgg man damay wa innama yakunu ma uridu te man li ma bëgg dafay am par force wa in aslamta li ma uridu kafaytuka ma turidu soo jébbaloo si li ma bëgg man yow maanaam nga d'accord ne li yàlla bëgg looloo jar bëgg ma doy la sëkk ci lima nga bëgg maanaam ma jox la li nga bëgg wa in lam taslim li ma uridu soo wommatul ci lima bëgg man at abtuka fi ma turidu danaa la sonal lool ci li nga bëgg waaye su ma laa yekunu topp sax dara du am illa ma uridu lu mel du li ma bëgg waaye gis nga wax ji nii gaañu kii ñooñu nee nañu wax ji wérul Moussa naa si def parenthèse si Abu Hamid al Ghazali Abu Hamid al Ghazali borom xam-xam yi dañoo doy waar ndeysaan Abu Hamid al Ghazali ci Ihya Ulumuddin am na ñoo xam ne seen guddeeg seen bëccëg mooy doye dal xadis yëpp Abu Hamid al Ghazali 3600 wala 700 xadis la indi ñi xam xadis dëgg-dëgg dañoo jàng dañoo jàngat.

ay si lañu lañ leen di woo xam nga téere yi wér eh, dañ leen di woo eh, diggante si xaax yi suna yi mën naa man diis téere daal maanaam téere xadis yi yëpp yi ci gën a yi ci gën a d'accord fukk lañ deux mille xadis yi mu ngi ci yi ak Muslim mille yi mu ngi ci yeneen ñeenti téere xadis yi xam mu des ay sept cent à peu près lépp a ngi ci abi dunia Taajuddin Subki bi mu ñëwee mu ne xadis yu bari yi boo yi Abu Hamid la wax sax man xamaluma ko benn cosaan ci diine maanaam balaye d'un revers de main al iraq yi ñëwaat tamit ne man xadis yi ci bari amaluma ko cosaan gaa yi xam xadis ñu am na keneen ku ñëw benn docteur bu ñëw lépp lu taaju diin sukki ak al iraq yi waxoon ne xamalu ko cosaan mu génneel ko cosaan moom mu continue liggéey bi ba gis ne ndekete xadis yi nga xamante ne moo wérul ci ci ci Ihya Ulumuddin 19 lañ à 9 pour cent dégg nga wax ji de waa léegi kon bàyyi nee na al muridu laa yuridu ab taalibe du bëggu ab taalibe du bëggu ma taalibe du bëggu dara waaw du bëggu dara waaye lépp lu mu bëgg rek da koy bëgg ci bëgg gim bëgg yàlla moo tax moo tax daf koy wax ne daal du bëggu leneen lu dul li yàlla bëgg dégg nga mu ne tashawufuka ila ma batanaka fika min fika min ila ma batana fika min al uyubi awla min tashawufika ila ma xajabaka anka min alxuyubi nee na yittewoo bi nga yittewoo ci feeñal lii ibnu ataillah al moo ko wax bàyyi daf ñu xam nga dafay moytandikuloo maqaamaat yeeg euh, woote yeeg naw sa bopp ci seyru beeg yooyu loolu la doon jàngale ba tey mu ne nga yittewoo yàlla wan la sa défaut yi ca sa sa bopp ba nga xam ko liggéey si jéem mu dañ ci yow moo gën fuuf ngay yittewoo yàlla wan la ay bu ñu ay kiraay di la wan mat Sénégal ba ñuy fubal suba ku koy gañe ah ñaata ñaata kan kan mooy falu suba ak nangam ak nangam yooyu noonu nee nga xam say ayibi bopp te nga liggéey ci moo gën fuuf nga xam xaybu waaye nga xam say ayibi bopp sax moo wala war a gënal nga xam ayibu keneen waaw gaa yi nag yenn saa yi dañuy am ki ñuy wax dañuy am xamalan am loo xam ne fees na boîte à lettre benn phrase bu ndaw ci nit ñu topp di lañ bët ah te am na ñoo xamante ne nag wax naa ko sànq looloo leen neex maanaam dégg dégg lu bon ci nit hmm? in yasmau ribatan taaru biha fariha farixan minni wa ma samicu min saalixin dafanu summun ida sumi ida samicu xayran dukirtu bihi wa in dukirtu bi shay'in indahum adini ustaas moo ñu ko jàngaloon ñu dem ba gis abiyaat yi ndeysaan waaye nee na nit ñi dañoo doy waar ba nga xamante ne eh, am na ci ñoo xamante ne in yasmau ribatan taaru biha fariha buñ déggee ci man loo xamante ne day gàkkal suma ngor gi gi ma nekk dañuy tëb di fecc waaw ñu tëb waa ji ay tëb di boo am na ñoo xamante ne toogal si jotaay rek nga ne kii ku baax la balaa ñuy jóg si jotaay bi il faut ñu ne ah, ko kii kii ñu wax loolu ñoom il faut ñu wax loolu seetlu ko jotaay boo dem di nga fa fekk koo xamante ne boo nee kii ku baax la affaire bi du teeree noonu mukk il faut que waa jooju noonu kiñ ne ku baax la il faut suba il nga génneel ko loo xamante ne normalement ñëpp dañ naan cam te moom mi koy wax ñi koy déglu sax xam nañ ne kii ndeke demul fenn dégg nga ne oustaz wax ji waykat bi daf cee teg ne wa ma sami'u min saalihin defanu te lépp luñ dégg ci lu baax ci lu man dañ koy nëb luñ déggee ci man lu tubi su in indahum commencé dégg ñuy wax ci lu man lu ñaaw rek seen nopp yi tijjee ko ñu commencé nekk ay saint de saint des yi waaye nag yittewoo sa ayibi bopp moo ëpp solo fuuf yittewoo ayibi keneen Cheikh Mahi Cissé ci xikamam yu doy waar yi nee na li nga xam li ngay wax ci keneen da nga koo njot li nga xam ci bopp daf sa sa bopp daf laa wóor te jaam yi yàlla mi leen sàkk rek moo leen xam jaam yi yàlla mi leen sàkk rek moo leen xam Ibn Arabi daana wax ne koo toog benn bis gisoo ko su ko gisatee nan ko màggal ndax xamuloo si diggante bi yan maqaama la fi yéeg gaa ñi ñoo bokkoon classe ñoo daan ànd yooyu rek lañuy wax waaw ñu xam naa ko bu baax Cheikh maa ko xam maa ko xam te bu ki muy wax xam na ko ba ma léegi ñoo gis quinze ans <laughs> dégg nga de dégg léegi nag euh, gaa ñi dañoo firi wax ji ndeysaan wax ji wax ju yéeme la hmm? wax ji wax ju yéeme la boo demee ci euh, boo demee ci euh, albuuti dafay wax ne ayib bi dal ñett la amna ayib bi bakken amna ayib bi xol waye amna ayib bi ruh bu ci nek da nga am say bakken mom lu ko neex rek bakken mom ba neex rek bakken mom nay noy tay sedd rek xol nak mom dafa versatile Ibn Arabi neena xol arbitre la ruh bi ak nafsi bi ñoy combat su nafsi bi gagne xol bi ànd ak mom su ruh bi gagne xol bi ànd ak mom بايننا للنفس عيب للفؤاد عيب للروح عيب ليس فيه ريب بايننا نفسه بكن أمنا عيب دي خل أمنا عيب روح أمنا عيب روح لن موي عيبم justement mooy naw sa bopp gi ngay naw sa bopp ci dox bi nga jëm ci yàlla ak maqaama bi nga toll fi nga nekk maanaam li may dox li ma xam bàyyi na wa haaka afatin tuqassi alqalba حب الرياشة أسد أيبا أشد أيبا مزغ وغيبة جليس السوء فحص نميمة ونفس السوء كذا هوى النفس فلا تتبع وفي الدنيا ازهد بلا تتبع كن حلس بيت واعتزل كل الورى لا تستتب أقابلا ولا مرا وغد طرفا من أيوب الناس ولتغفل عنهم بكل بأس بايننا هاك عافات أي في برنجني وخمتني تقسي القلب دفي وولو قلبي

En considération il faut que nous attirer attention mu nit Wa da nga seetlu ne gis nga liñ doon wax ci ayib na nga naka la c'est une parenthèse bien sûr mais si si li la bok rek parce que Soufiane ke amna yu bëri yo xamantene war na koy xel am ñun ñep jamono yi am na benn prise de position bu ñuy def ci góor ak jigen bi doon sey ba tass ki am version am am version hmm ñun ñu nekk ci rek ñun ñu ngi ci rek ñu ci rek ñu ngi ci rek ñu ngi ci rek man sax bindoon naa ci benn wax ma ne après naa ko bàyyi damaa waxoon ne man ñaari nit ñoo xamante ne ba ñuy gisante bay bëggante bay takkante yow fekkee woo ko buñ demee bay tojantey bopp ku doye di rek moo ciy dugal xalaatam ndax li gën a garaaw mooy gémmiñ gu nàcc du wax dëgg gémmiñ gu nàcc du wax jàmm gémmiñ gu nàcc du wax jàmm maanaam bu neex bu bu neexee ñun loolu mooy suñ jikko bu neexee rek dañuy rayante waaye bu bu naxaree dañuy rayante waaye gor yi dëgg ñu ngi leen di xamee ci su neexee duñ duñ changé su naxaree duñ changé bàyyi wax na ko sax nee na arab yi maanaam dafa am lu doon wax ba yàgg ne arab yi duñ soppi misaal arab yi bu buñ joxee benn qaayida ni duñ ko soppi mukk ah man diw ya kii moo baax suba moo bon non non loolu koo gis mu koy def rek xamal na am na problème waaw ah, ñoo ku dul kuy soppi aw tagg xamal na am na problème waaw dégg nga de bàyyi nee na xubbu riyaasati bëgg sangel ashaddu ayban mooy defo bi gën a rek musxun wa xaybatun wa namimatun nafsu su maanaam wuruj wor jëw toogaaleeg koo xamante to toogaa tooga ay toogaale yu bon hmm. ay àndandoo yu bon ay nit yoo xamante ne duñ la il te il n'essaie pas de te pousser vers le haut ah li lay pousser ci ay rivalité la ak ay concurrence ak ay bañante kii bëggu la kii daf la bañ kii nii la kii nele la ci loolu rek la bàyyi na ne képp koy àndal ku bon ku ne na fekk ne mu nga ko yégee ci sa mbaax gi mais du la wàccee ci sa bon gi dégg nga de كذا هو النفس نكنون بان نخي باكين فلا تتبع فلا تتبع بوكو توب وفي الدنيا زهد بلا تتبع نغ ادنا تبول توب ادنا هي كون حلس بيت نكال اجي تجب نيك واعتزل كل الورى نغ برو بيب من فن لا تستتي بود نخل نخلو اقاولا اي وخ ولا مرا اكي ورنتي وغد ترفا من عيوب الناس سبتي نكم مور تي عيب نيت wal taxfulan anhum na nga sargan ci seen défaut yi sax ah boo gisee sax défaut ci nit sax melal ni ku ko gisul ah bépp tayal tayalal ci ci ci ci ci ci défaut yu jàmbur yi daal danga nga de bàyyi teg ci ne bàyyi teg na ci ne almuridu taalibe bi yaf naa fillaahi dafay jeex ci yàlla li yatimma imaanuhu ngir gëm yàlla mat taalibe ki bëgg yàlla dafay jeex ci yàlla ngir gëm yàlla mat maanaam jës bu bi yëpp ak kii bi yëpp pour pour jeex ci yàlla la rek te jeex ci yàlla bi pour lan la pour rek sa gëm yàlla mat dégg nga de mu ne su mayef naa fi sifaat yi su paree nag mu jeex ci melo yi te nee na melo yi waxiyal xadaraat ñoom ñooy xadara yàlla yi xadaraat yi ko xam xadara yi xam na su maya topp mu dax ci ay lëndëm lëndëm yo xamantene ay ghaibu yo xamantene la shay afiha du am dara lu précis lu mu mën jàpp fof hatta yataallaqu bil asma'i bam dem ba jàpp ci tur de nga liñ doon waxtane kérok so demé ba ba ba jeex ci zaatu justement problème la tamit am ñu wujud bi noy def nu mu def ba tàllaliku nu mu def ba tàllaliku nga ci séyru bëgg xam nan la wujud bi def ba tàllaliku bàyyi nee na boo jeexee ci zaatu ba gisatoo dara ba mënatoo xammee lan moo lan moo fi indi wujud bi mu ne fan ngay aju da aju ci tur yi xam ne tur yi ñooy tëjëliyaat ci yàlla def ci xaqaayik yi ba mbindeefu ñu mën a tàllali ko foofu lañ ci mën a yem suma bi sifaat yi topp ci melo yi suma bi zaat yi topp ci zaat bi mooy jës bu ñaareel gi bàyyi daan wax nee na wa anna ilaa rabbikal muntahaa te na nga xam ne ci sa borom la yemuwaay bi ah ku doon dox ba dajak yàlla sa dox jëm ci yàlla jeex na dox ci biir yàlla ji rek fa des Oustaz Ibrahim ci am rais suñ xarit bu baax bindoon na benn papier ndeysaan kuy sonn la ci bind ay seyru yi dafa bindoon ne seyru ñetti niveau la am ci waxi bàyyi la ko tibbee maanaam seyru ilallahi seyru fillahi eh, seyru anillahi seyru ilallahi ak seyru fillahi ah, am na ñeneen ñu si tool tool dolli nag billahi fillahi lillahi sëyru jëm ci yàlla sëyru ku jë sëyruwul ci yàlla koo xam ne mu ci bànneexi bakkanam mu ngi ci ay mbiri boppam kooku mu ngi dox parce que amul kenn ku toog ñëppay dox am na kenn am sëyru ilallahi dafay dox ci yàlla kooku bu yeggee ci yàlla te amul fenn fu muy fekk yàlla nag parce que baay gis nga el elmu bihi wa illa fal kullu xam ngi la rek sinon ñëpp yegg nañ ak beneen boo xam ne sëyru fillahi dox ci yàlla la du jeex وأن إلى ربك المنتهى خمل نتي سبر أم لم يم واي وربك لا نهاية له باين أنا جسنا بو دخي ما نام دخنا أم غفناو دخنا حقائقي دخنا حضراتي منو نج وح لب مراحل يب ما يدوك جار برسك مبوت ميدن كورا سامو باين أك تكسي فراز بو خمل تني موي جيخل جتاي بي لم يبقى مطلب بعد هذا إلا المراقبة والتقوى والفرار من من السوى والفرار من الفرار وشر ما في المريد تشوفه إلى المقامات ورؤيته أنه جد واستحق شيئا وهذه الآفات تنشأ للمريد من مجاورة أهل الإنكار والإدبار والإسراك والسلام بايننا ginnaaw jaam bi bi mu doxee lii ba دفنا سلوك def na sulukul asma def na sulukul xaqaayiq am na jës bu ah bàyyi nee na dara desatu fi comme càkkutéef lu dul fuglu yàlla ak ragal yàlla ci zaahir ak ci baatin wal firaaru mina siwa ak daw lépp leneen lu dul yàlla wal firaaru ak daw sax minal firaari daw gi ngay daw daw googu wa charru maa fil muridi li gën a ñaaw li gën bon ci li mën a nekk ci taalibe gannaaw ba mu jaaree fii ba pare mooy tashawufuhu sopp gim sopp ilal maqaamaati jëm ci maqaama lijjanti gi muy lijjanti maa am makaama nanga maa toog ci nii maa def lii maay kutbu maay na naa wa ru'yatu ak gis gim gis ne moom annahu ne moom jadda góorgóorlu na kon wastaxaqa yelloo na dégg nga bàyyi moo de maanaam def naa lii am naa lii kon toll naa fi yàlla na ci man pour mu am dara moo taxoon ma doon wax ne keroog am na ñu bëri ñoo xamante ne yaakaar ne bu ñu doxee seen seyru ba mu mat rek dara du ci topp lu dul kayite ngi am demal woote te du loolu bàyyi na boo doxee sa seyru ba paré li fi des muraqaba ak taqwa amul ak cëriñ manam y a pas de voie dans la Tijaniya y a pas de voie aménagée qui ouvre vers la vers la serignerie serignerie mo moo nek sëriñ quoi amul amul te ken tamit warta am càkkutee fi nek serign mu nga bëgg nek waliyu yalla bo nekkee waliyu yalla c'est pas forcément da nga nek serign wax nañ ko fii keroog bàyyi bi muy wax taalibe bi ne ko yegg nga ci siddiqiyatu mais nga nekk taalibe mu gën foofu nga nekk murit donc amul ci maqaama yi ñuy waxtaanee maqaam wilaya maratibul wilaya amul ci benn boo xamante ne ça ouvre droit à la seigneurie amul bàyyi nee na daal boo doxee sa dox bi li fi des mooy muraqaba taqwa firaaru mina siwa mu ne nag li gën a bon ci li nekk ci taalibe bi mooy ut ay maqaama ut ay daraja ak gis gim gis na moom yit maanaam góorgóorlu na te am na lu mu yelloo wa haadihi l afaatu te feebar yii mu tudd nii tansau lil muridi fi muy sosoo ci taalibe bi min mujawarati ahlil inkaar yi toog gi muy toog ak diinatkat yi même gis nga toog ak gis nga nit nit bu toogee ku koy diingat lu muy def ci moom dafay titiyee orgueillam bu titiyee orgueillam lan lay def il va vouloir se donner de l'importance dafay am day day def ba def lu ëpp comprendre nga de looloo tax bàyyi ne taalibe bi yii nii feebar yi li koy jur si moom mooy toog gi muy toog ak ñiy diingat même yow sa muqaddam bi nga ne dafa mooy xalifa yàlla bi ngir la ngal la waay moytul di toog ak ñu koy diingat parce que sooy toog ak ñu koy diingat rek dafay créer ci yow une sorte de surenchère nga wax ba wax loo xamante ne waroo koo wax d'accord Euh, wal inkaar wal idbaar ak ñi dëddu pay yàlla bi toog ak ñi dëddu pay yàlla bi wal ishraaki ak bokkaalekat yi dafay jur ci yow feebar yi bàyyi tuddeeku wa asalu mawlaana alkarimu an yuriyana alxaqa xaqan wa yarzuqana ittibaahu bàyyi nee na ñu ngi ñaan yàlla mi màgg te tedd mu wan ñu dëgg bañ xam ne lii mooy dëgg te mu xéewalal ñu ñu topp والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه مو ون يولي نين بن خمن لي نين لا تلودو لي يالا نين لا مو خيولي مويتو وياخذ بمجامع قلوبنا الى كمال المعرفه به وبنبيه وبوليه ديال باينينا يالنا يالا جيل سونو خول ليب يالنا جيلي خول سونو خول سي ديمونسيون ييب يالنا كو يالا جيل tee suñ loxo nag yóbbuñu bañ am maarifatu billahi gu mat sëkk ci moom yàlla ñu xam yàlla xam yàlla gu mat sëkk xam yonantu bi sallallahu alayhi wa xam gu mat sëkk xam cheikhu tijaani radiallahu anhu xam gu mat sëkk te yàlla nag lépp lu mu bëgg rek mën na ko bu yàlla bëggee ñu nekk aarif billah kaamilan dana ko def assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh <laughs> or